li tax ma wax lool parce que lu maanaam lu ëpp ci mbokki taalibe yi dañoo dañuy dañuy dañuy dañuy suivre SBT Média TV ak SBT Média point com di xool te ñu di ànd ñun ci màggal gi. mu mel ni que am na ñu wax sax ne est ce que bu bu fekkoon ne maanaam booloo gi am na est ce que du a du gën a doon xorom seeg yooyu daal. waaw ay dogal la Serigne Touba moo yor ay dogalam booloo gi àndoon ak sëñ Saal ah dañuy neex. waaye sëriñ bee ko bëggee nii ay dogal la ay dogal nag boo amee mënoo si dara mënuma si dara waaye dogali sëriñ bi la nammelu seriñ bi la waaye mën na wóor ni sëriñ Tuubaa dina lijjanti lépp ba lépp jaarat si yoon ndax sëñ Béthio sëriñ Saliou ne ko woon Cheikh Béthio mu ne ko Mbàkke mu ne ko doo yàqu doo yàqule te kenn mënu laa yàq te li am tey mu mel ni dañ na màggal gi daa wéet ndax ñaari màggal la waaye loolu lépp nañu xam ne na meelam képp la barki Serigne saaliw man de ak na meelam rek laa si gis man cuun te it du ma ŋàññi kenn du ma wax kenn loo xam ne ëllëg dinañ ne ah Daaru Salaam a wax li man de Serigne Saliou yarewu ma noonu man li ma Serigne Saliou yare mooy nekk si li ma ne di liggéeyal Serigne tuba jël sama lépp jébbal Serigne Touba Serigne Saliou ma yar fukki at ak juróom-ñett nu ma mën a mel ba nit di ma gis di ma bëgg Serigne Saliou kon bu loolu amee ñu ne màggal ñaari màggal kii nga màggal fii kii nga màggal fii nameelam la man la wóor ni moom day ak jubloom la man la wóor ni Serigne Béthio barke Serigne Saliou da di góor yàlla tigi day jëmm joo xam ne mel ni moom amul te dootul amati mu mel ne que suñu saal sa xol sa xol fees na bu ko defee ñu jaajëfal la jàll ci yeneen mbokki taalibe yi rek yaatal bu ko defee boo amee message booy jàll rek. waaw li man li may jàllale mooy di woo cantaakun yi ndax sëñ Saal Gueule Tapée sëriñ Saaliw daa doon nit ku baax sëñ Saal doon na jëmm joo xam ne ànd ak moom neex na si lima xam sëñ Saal nit la koo xam ne. taalibe yépp ko yëg ki xalif général yëg yëkkati kaalaam jox ko kookee de ànd moom dana neex ba tax na maa ngi woo mbokki taalibe yëpp nu ànd liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi day ak liggéeyam daa yaa sëriñ bi ab liggéeyam daa yaa waaye maa ngi sàkku si mbokki taalibe yi nanu ànd te liggéeyal sëriñ bi ndax xam naa ni liggéeyal sëriñ bi mooy sunu ndamul tey mooy sunu ndamul ëllëg ba tax na ñu ngi woo cantaakun yëpp ñu fas yéene ànd ak sëñ Sall tape Tapée ndax moom ànd ak moom day sunu ndam ànd moom day sunu xéewal ànd moom day sunu njariñ ànd ak moom day sunu wér ànd ak moom day sunu mucc ànd ak moom day sunu texe ànd moom day tax ku nu gis bëgg nu. kon ba tax na noo ngi ñaan si barkeb Serigne Saliou Serigne Saliou Thioune yal na ko fi Serigne Touba yàggal yal na ko sëriñ Touba wéral lii mooy njëlbeenu màggalam màggal gi nga xam ne mooy ak tàmbaleem muy màggal goo xam ne mel na ni si saayir sëñ Béthio da koo wutee waaye da di day góor yàlla sëñ Saal bu ko Serigne Touba tegul woon loxo billahi màggal gi dana sooxe waaye teg gi ko Serigne Touba teg loxo moo waral màggal gi xéewal yi baawaan nag yi yeewee lépp di dàqe lépp luy teraanga jëm si màggal gi foo dem sant Serigne bi loolee kat ak njàmbaaram ak pëseefam ak bëgg gi bëgg Sëñ Touba looloo ko may lool. wasalaam jërëjëf jërëjëf jaa ngeen jëf.